damay digal parti politique yëpp tale ko sans bos ñi nangu ne wuute bëgg-bëgg wuute bokk bëgg-bëgg wuute gis-gis du gàcce du sikk ci politique lii sikk ci politique mooy bu ñu bari bëkkee lu ñu bëgg nga ñàkk am foo mën a waxtaan ak ñoom ak noo mën a di waxtaan ak ñoom ba nga xam ne ñenn ñi dañu mën a nangoo bàyyi ñi ci des am waaye président Abdick il faut que ñun ñi nga xam ne ni ñoo ànd ak moom bala ñu jamono teg moom ñi xam ne moo sos au conseil des collectivités territoriales histoire dana fàttaliku ne dina jàpp ne lii Macky Sall moo ko sos kon na taxaw ñu jàpp ko taxawle ko ba nga xam ne ay borom xam-xam yu ànd ak jamono yu ñoŋ gannaaw kuréel gu ñuy këstoo la ak càmbar ak xaytu ak xayma wala di ci génn ay tënk yu ñu yu ñu yu ñu jox nguur gi jox ko ñu yor gox ak gox goxaan yi bokk moomee fi dañ ko war a dimbali ba ci juróom-ñaar fukki yi mu tànn non seulement mu tànn ci ay acteurs développement locaux waaye mu dugal ci ñoo xam ne ni seen activité dana dëppoog yeneen compétence yi ñuy jox local yu bees yi ñu war a jox collectivités locales yi mais mu fexe itam ñiy liggéey ci wàllu impôt domaine affaire problème cadastre wala ñuy liggéey ci wàllu trésor wala ñuy liggéey ci wàllu droit wàllu yoon ñu dugal leen ci ak ñeneen ñi nga xam ne ñu yëngu ci wàllu environnement ak ñu yëngu ci wàllu njàng ak ñeneen ñeneen pour ñu mën a gëstu foofu noonu bu baax a baax waa am na également mu dugal ci waa société civile ñu demee ni que waa ENDA waa forum civil waa waa USAID ñi doon yëngutu ci loolu waaye mu xool également quelques maires de capitale régionale quelques maires capitale départementale waxuma ñëpp mënu ko sax d' loolu loolu mënu ko mais également quelques maires même bu dee benn maire capitale régionale la wala ñaar wala benn maire capitale départementale wala ñaar wala benn maire wala ñaari maire yoo xam ne ñu nekkoon commune rurale nekk commune ñu dugal leen ci ca xool seen profil foofu waruñu fa dugal rek ne kii man maay politique wala man maay maire rek war fa nekk dañu fa war xam ne xam nañu lu di xaar loolu moo tax ma ne ñun ñëpp ñoo ci a jàpp enfin nañ ci bàyyi xel également diine yi ndax nation bi la incarné te làbbe bi comme diine lislaam dañuy ittewoo suuf pour fu ñuy jàngale fu ñuy tàggate xale yi fu ñuy jullee fu ñuy jaamu yàlla ak fu ñuy yare nit ñi wala sax fu ñuy fu ñuy bayee loolu itam dañ ci war dimbali par exemple yedduma ko ci pénc mais damay bëgg a nekk magum waxoon naa ko du ma nekk magum xamoon naa ko lii su ma ko waxulee ba la 14 jot wala ba ñu déposé le si wala moom ba mu nomee mën nañu ma reproché ëllëg ne waxuloo ma ko woon loolu moo tax ma yëkkati sama kaddu jël sama responsabilité pour l'intérêt du Sénégal ma génn ko lii ma fàttali ne sama dëkk Kaffrine ma nekkuma candidat pourtant 39 candidats ñaari poste 39 candidats la APR am P AFP am 5 candidats PS seen biir am 7 candidats comme ñoom ñëpp déggoowuñ nag mënuñoo tànn seen biir ñenn ba ne dañ koy jébbal seen i njiit waaye waaye gor ca ja comme ne ñun mënuñoo àtt suñu bopp ka ngeen wax mu àtte leen yéen a sàkku mu àtte tànn leen leen jox ma ne ko ñun mënuñoo tànn waaye bu tànnee ëllëg nag na nga ci ñëpp d'accord bu ci kenn joxe bopp roc ci làmmiñ waaye itam bu kenn mboccet benn dossier génn ko ci. loolu ba jàpp na ne baaxul parce que su fekkee ñoom gëm nañ démocratie gëm nañ décentralisation wala boog ñu gëm état de droit te ñun ñëpp senegal léegi ñun ñoo sos sénégalais ñoo sos au conseil bi nii dañ ci war a bokk man jàpp naa sax ne parti yi ne moom mënuñ ci dem ndax dañoo ragal ku leen daan wala ku leen gañe président bi war na jël ñaar wala benn wala ñett gis nga sa famille politique yi am na. mu tànn ci ñooñu nekk ñu nekk fa te jàpp na ne ku mu tànn ne la kaay bokk fu ñu liggéey la Sénégal su dee Sénégal moo la ñor da ca bokk man loolu lay xelal président Afrique parce que man Sénégal rek moo ma ñor vacances citoyennes yi tàmbali na ma ñëw fii ci euh, fi fekk fi maire si la mu bëgg a jëmbat garab di wut ay garab te lii nee na ba dafa bëgg at mu wéy mu tombeek jamono boo xam ne ministre Abdoulaye Balde mii maireu maireu Kolda moom ak Mame Mbaye Niang nee nañu ren dinañ jël ñaari junni ak fukk ak juróom-benn ci garab jox ko xale yi seen gox yi ñu jëmbat ko loolu lu rafet la ma di leen ci ñaax di leen ci encouragé waaye itam di wax waa Thiès ndaw ñi jigéen ñi mbootaay yëpp ak kuréel yëpp association yëpp mais nañu suubu ci jëmbat garab jëmbat garab te di ko suuxat te di ko toppatoo ñu mën a jëmbat garab yi fa am moo xam sidéem la moo xam dimb la moo xam sump la moo xam new la moo xam nete la uul wala kuuni nañu ko jëmbat te ko suuxat parce que loolu day delloo seet askan alam bi te alam bi Sénégal léegi dafa dëgmal jamono joo xam ne ndox mi dina bëri kon nag ni ñuy war a encouragé mbay mi noonu la war a encouragé également jëmbat ak suuxat ak saytu alam bi ci loolu nag vacances citoyennes warul nekk rek jamono boo xam ne ñuy xumbeel def concert ga ñun dañu war a également waru tam nekk jamono boo xam ne dañuy annoncé naan danañ génne nangam milliard déedéet loolu nañ ko gis ci loxo nit ñi pour ñu gis ko ci loxo nit ñi maire yi ak président département yi dañu war a jël ànd ci ak état bi ci CDC yi créé fa ay nit ñoo xam ne même bu ñu di fay benn benn par période ay ay ay pour ñu encadrer xale yi pour ñu xam na la ñuy créer entreprise nan la ñuy créer GIE nan la ñuy créer ay structures yu mën a amee xaalis waaye ñu tàggal leen également naka la ñuy saytoo seen wér-gu-yaram naka la ñuy saytoo également lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu delloo siwaat baax valeur yi nga xam ne moo doon tax ñi xam ne njëriñu ndaw ci réew ndaw moo yore kattan ndaw moo yore sawarte ndaw moo war a donc bu vacances jotee au lieu mu dem di foo ko fecc rek muy def théâtre pour yéen nit ñi waaye tam également muy jàngalaat di yëngutu ci wàllu cours de vacances xam ngeen ne Sénégal ñëpp a ngi jàm jàmbat grève yu bëri waaw su fekkee ne at mi dañoo grève ba grève bi grève bi bëggoon a yàq njàng mi suñu vacances jotee kay waaye waaye élèves yi ak jàngalekat yi nekk ci ASC Navétane nañ dem joxe ay cours de vacances ñun de ba ñuy tey ci toll loolu ñu doon def voilà. li leen indi li ma indi voilà mooy dañu bokk ci maire yi nga xam ne nii dañu jël ay pexe ak jumtukaay ak koppar ci seen dëkk yi pour def ko ci xeexu sida bëgg fii ak 2020 téeméer boo jël juróom ñeen fukk ba dootuñu bu ñu amee jàngoro sida seen yaram bu ñu feebar ndax ñu ngi am nu ñu mën a ga fajoo waaye téeméeri Sénégalais yoo jël juróom ñeen fukk ba xam seen statut sérologique yooyu xeex nag ci jamono boo xam ne partenaire technique financier yi ñu ngi génn seen loxo ci financement wu xeex boobu faaw nit ñi jot ca ndimbal da cay fekk loxol borom doom ko juree mu nekk liir nga di ko sang di nàmpal di toppatoo diw diw ak yooyu ba mu xëy yàngaar nga jàppale ko mu nga teete ko mu dox bu doxee ba mën a dawi nag da nga koy bàyyi rek mu mu dem seeti jànkuwante ak jamono loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk ñu bëgg maire yëpp soobu ci maa ngi rafetlu le fait que docteur Safetou Ndiam Thiam wax ne dana am ay maire ñu jël def na ay ambassadeur de la riposte contre man de yebu naa ca te wax naa fii ci expérience bu gàtt li nga xam ne waa kafrin maa ngi ko bokk ak ñoom di ko def pour xeex sida sidaa daal loo xam ne na ñun ñi nga xam ne ñu ngi toll ci ay ñeent fukki at fanweer jàpp juróom fukki at ñoo ko war a gën a xeex te yee ci nit ñi ba nga xam ne bu ëllëgee xale yi juddu ëllëg di xale jëm ba tuddee keppar ëllëg du ñu loru ci lii nga xam ne ni sidaa mu ngi koy lor yenn mag ñi ndax kat ku liggéeyal xale yooyu tey yaa ngi liggéeyal senegal ëllëg te liggéeyal Sénégal do ci tembe tembe bi moo ëpp solo loo gis ndax ëllëg du añ du ko yekkal. ah dimba amul Cees de.